mais li nga xam ni moo am solo tey nga xam ni moo solo suñu fii mooy nekk askan wi dundunu askan wi mais démocratie bi ni mu baajewoo ni mu mettitee niñ ko mettitale difficulté yi nga xam ni moom la Sénégalais yi di vivre yéen ñëpp xam ngeen ni depuis 2012 déjà li xew ci réew mi musu fee am ci harcèlement ci embastillement ci métital les acteurs politiques dans ce pays parce que c'est ça le contexte actuel moo tax tey suñu waxtaan ñu jël ko pour di dénoncer waat pas ci ay paroles mais pour wax ne li nga xam ni moom la Ousmane Sonko et tous les leaders politiques et de la société civile qui sont embastillés parce que loolu am solo aujourd'hui ñu seen dëndin seen nekki seen métitlu moo waral suñu jat yéen dama wax ne ñun ñëpp société civile ak parti politique dañu dajaloo nangu taxawal f F24 ñii naan day toppandoo M23 suñu nangoo ni day toppandoo M23 rek tardé nañu parce que ñëpp yaakaar nañ ni mais surtout gëmoon ba ñu génnee ci xeexu M23 Sénégal dootul jànkoonteeg lii muy jànkoonteel ay incertitude jëm ci élection ay incertitude jëm ci droit yi respect yelleef ak aqu doomu aadama F24 ñu lal ko tëral ko ñeenti yëf lal ñun ñëpp ñu d'accord ci y a une unanimité totale de la classe politique et de la société civile combattante pour wax ne bu jëkk bi Macky Sall non à sa troisième candidature bi ci tegu ñu ni nañu def élection inclusive boo xam ni ñëppay bokk kenn warul nangu ñu beddi bépp candidat ñetteel bi ñu ni les détenus politiques les prisonniers politiques nañ leen génne parce que nag su fekkee réew dafa dem ba kenn amatul droit wax sa xalaat defe naa day bëgg a doy waar te loolu kenn mënu ko nangu te ñun duñ ko nangu ñeenteel bi moo des droits et des libertés ce combat de du F24 nous c'est pourquoi nous vous tous à la manifestation du 12 mai na ñëpp ñëw taxaw ne ñëpp ñëw fekke pour wax ni non à toutes ces questions-là que je viens de d'énumérer